file ci centre de santé Daaru Manaan mujjee woon a nekk nag centre de traitement lu jëm ci wàllu jàngoroy Covid 19 gi jàngoro joojee sax dey bu fekkee ne des na dëgg ci Touba bi lépp centre moom mënees na ko cee génnee ndax jamono ji amatul benn ab malade boo xam ne ma nga foofee mu nekk nag centre bi njëkk dalal ñi nga xam ne ñoo amee jàngoroy Covid 19 gi file ci Touba turam mujjee ràññee lool muy centre de traitement bu Daaru Manaan ba tax na nag mouvement taxaw askan wi di kuréel goo xam ne li ko tax a jóg moo di jàppale askan wi ngir taxawu leen ci bënu ko soxla gannaaw ba malade yi nga xam ne ñoo nekkee foofee ba nu jeexee kilifa yi nga xam ne ñoo nekkee foofe te yor bërëbu fajukaay sàkku ci gire kuréel ngir ñu daal di ñëw daal di nag amal ak set setal jëmale ko ci bërëbu fajukaay gi waaye nag lu ko jiitu nag service d'hygiène kay matuwaay yoo xam ne jotoon nañu ko ci jël laata ñoom ñuy egsi ci liggéey bi ñu ne nag jamono ji loole ñu leen woo mbirum askan wi dëgg la. di taxaw di xeex ci xeex bi dëpp bi nga xamante ne dugg na ci dëkk euh, ci réew mi ak léegi euh, mouvement bi mu ngi ci taxaw taxawaay bu mat sëkk bi ñu taxaw moo xam di yëkkati alalam di ci def moo xam di sensibiliser doomu aadama yi ah, moo xam tamit fu mu ci mën a jàppe ba tey jii fi nga ñu fekk ñuy wax sant yàlla alhamdulilah ndax ku nekk xam na ne hôpital bi toll na ay jamono pour nit dugg fi rek problème la parce que tolluwaayu jam jàngoro ji toll moo tolloon foofu tey bu ñu demee ba ñu ne dañu nettoyé hôpital bi ngir mu dellu na mu meloon ña fi daan faju si di faju si loolu sant yàlla la gi lay set goo xam ne amal nañ ko yaatal ko ci bërëbu fajukaay gi lépp rek di firndeel ne mel na ni léegi am na beneen xar kanam goo xam ne amee na ko mouvement taxawu askan wi ñoom itam jàpp ne nag jamono ji askan wi war nañoo am taxawaay gu am solo jëmmale ko ca google ka mbaas nettoyé mu dellu fa mu nekkoon kon war nañoo jaajëfalaat suñu médecin bu baax a baax a baax a baax. Touba bokkoon na ci dëkk yi ci Sénégal yi ëppoon feebar bi kon bu ñu demee ba ni centre bii bokkoon na ci centre yi ëpp yi ñu hospitalisé danañ ba di ko euh, di ko di ko raxas di ko nettoyé pour ñu delluwaat fa mu nekkoon. loolu signe la bu waneem ne ñun war nañoo mën a gën a fonkaat suñu bopp gën a xamaat ñooy kan gën a xamaat suñu taxawaay bu baax a baax nañ gën a góorgóorlu bu baax a baax gën a farluwaat bu baax a baax gën a xam ne ni nga xam ne noonu lañ fi tegu jaar ci yoonu ba egsi fii nu egsi buñ ko wàcc centre de traitement bu daaru manaan nekk centre goo xam ne nag bëri woon nag ay malade yoo xam ne dañu fa doon dem di faju rawat nag jigéen ñi nga xam ne dañu fa doon am goneeg yu ni mel boobaak léegi nag wanoon ginnaaw ña fa daan fajoo ndax mbas milee jamono ji nag amee na geneen xar kanam